aboneel bul fàtte bës notification bi ngir ngay am suñu vidéo sama wóolu fii xam nga sa jotaay mbedd bi neexuma ndax mag laa kilifa laa am na yu bari waruma waaye damaa bëgg sama diggante ñu gën ko firndeel xam nga fi nekk lu koy waral mooy may ñëw di ndogu sa biir kër. <laughs> loolu da laa bëgg. nga may tàggal ndogu def say daagu waale dama ne sax yu baax. wax amul xale bu ndaw nga. deux ans deux daan. melo fare nga kale nga comme ni nga koy waxee. yaa may dégg ndax man xam nga man ba ma xam ne aw ma toppatoo war a ca man aw ma ko cim reetaan ba xoolal xoolal jàllaabe ba li nga wax yëpp mën naa nekk hmm? mais du demee nii de ah ah yow Ben, ndogu bi da nga koy koloo koloo xëdd bi waxi nopp te vraiment nag looloo yokk tax sax ma bëgg ñu toog parce que man tubaarikàlla macha allah xam nga ne lu ma bëgg ci góor war naa koo mën a na. bu dëgg da da da nga dëpp gi. waaw wax amul dara xew. déedéet moo tax nag nga war a def effort ndax nag ñi ma bëgg dañoo bari de. mais guddi danga da maa jaral ma bàyyi ñëpp ànd ak yow kon da ngay def effort de su ndogu bi. day mat nay mat tey teel la ñëw. dara dara métti. 17 heures. pile. xaalisu xëdd bi waxi nopp. day mat tubaarikàlla macha allah bu ma duggee ci waañ bi nag ba defal la sama yëf. déedéet dootoo ko defati. ay ilaha illallah yii laay nam moom ci ci ma bëgg jigéen gu may na kuy wax ak man ay nii. waaw jigéen gu yoo xamante ak ay bëtëm waaye man man xaw lu xaw ma lu ma dal man xaw ma sama bëri dafa dafa kër a xeyna tamit yeexa gis bi la rek. jeexna yeexa gis bi ma yeexa xëdd gi sa lay sa kër xëdd sé ah xam nga may def damay dégale xale koñ bi yo sama pot ñi yété xëdd suma yété xëdd ba sa bu ko man suñu ko bay xale ñu ko. wax amul dara xale dama la bëgg. lay lay la la waaye jogo ma ci mel ni wax am da ko walé ki alaykum salam ñoy fi yene a ngi ok. ah yéen toogaay bi jekk na de macha allah. Our baby tunggu is fine. Our baby Tuga is fine. Hey. Eh, eh. Hey. Our baby Tuga is fine. Hey. yow looy def Our baby Tuga is fine. yowee. Ya Our baby Tuga is fine. yow ya laay waxal de. lan ah. la Loy mel ko sa xel mi dem ni? Ki lan mo nek ci mom lu nekul ci man. Fi fan la. Wa. Fi fan la fu ma ne ayo. kii jullit la yee. waaye man fu ma nekk nii nag laa wax na fan nag fan si ma nekk nag fan la nag kii kan la. koy waxal yow xam nga man la kan. yéen ma laa ragal. ñu xul dee waaw eh. ñu xul la dee. lan mooy problème bi yow lan la. jooyee mel ni ku xelam dem ni jooyee dama laa ragal yow da ay ñaaw. ah loo mel ni yow. kii ndax doful ci diggante bi. ayoo laale laale laale ayoo laale ayoo eh dama laa bëgg a ñuus te yow. ñuus ñuus léegi boo ma ñuusee ma ñuus la waa yow. kii jullit la. Oh. eh. Mass Mass Mass Colobane. laa dem di Sadio ma Pape Demba Lam. Pape Demba Lam gars yi jàpp ma kër ma gars yi jóor xaw yoo xaw ni nii Sadio. sànq maa ko bàyyi naa ko tuuti naa ko ma nu ma ko defati bàyyi naa ko laissé partout koy nga doon sa ku ñëw fii ni mu jël si ma ne dem ma gis laa def léegi ma sàcc dama ko dama ko defati léegi man man damay nekk sax emprunté léegi mu jeex man man emprunté laa bëgg a neex léegi mu jeex tàq ñëpp am jàmm Oh, su ma ma I don't even have time for you can you hear me Hey, eh, I want some yow yow problem yow problem does it look like I'm joking do I even care ngamira imo lon feñe kata kalo dindi mere wala bedo kono amra fombe wotala bara bina la bentar la jan avela sejam ki ko ko toñ mon ngay toñ can you please get out of what i'm talking about i'm not talking to you I mean, do you understand that i'm mean talking to you it's someone boy waxuma ak yow na bàyyi ma ah eh amoon sum xëy yow yow problème Yeah, who problem? Does it look like I'm joking? Do I even care? Do I even care? Yeah, ma bul wax ak man. Taluma la. Am naa lu ma doy. est yaa may dégg? Yaa problème il vous suit. man ma expliqué ko li xam la ma ngeen ma moytu ci kër gi tey est yaa may dégg? Maa nga ma wala déggoo ma? I'm really sick and tired of all this nonsense in this house. You see, I'm a dig. I can if we find. Can you just leave me alone? Please. Just let me be, please. I'm not please. Mana? Man, ma bëgg yow problem? problème sama problème la. Waa léegi di nga ma bàyyi wala

nee na maay Saïd moo ko tooñ maay Saïd. kuy maay Saïd yow. mu laaj ko. am sore lan la. ite yam na fonte botam mbanim fayal pour kana ka futoye lillahi ala ku mon min diyate te tebe wala kelanta la ah ye wala mbira parce que manque jandingote wala yatina merna ah merna su mere dëgg lay lakk lakk merna xawma loo ko def waaye bu ma leer sa ndaya loo def kii loo def kii eh ka moo jaanin kaalonga man kiling nee na da ngaa manqué yow da ngay dof doflu kii nee ko tooñ yow waxatuñ dara ngay profité na man ay xam nga yow. Eh, waxal waxal moom waxal. mën ngay wax xam waxal. Master. Naya, can you just leave me alone? Huh? Do you think I'm always going to take it easy with you? What? Because I'm an easygoing woman. What? So you're going to do anything that you so wish to me. What? Well, today you got me wrong. Because today is a different day. Day. You're going to have it hard with me today. Me today. Lengan wax. Lengan yow. Lim yaakaaroon ci yow yëpp gis ndax yow nga dem si mbedd mi def fi ñàkk fayda yoo xamante ne ni kilifa du ko def. après yow dof nga rek dof nga rek. ki eh, daa wax lool ki daa wax lool. am sore te sore. tey bañ a wax man. loolu xew. bañ a la dugg ci man tey. d'accord man xamuma lu mu xew. waaw wax ma la ma xam la rek wax ma rek bu fekkee maa la ma baalu la ak. en temps nee la ñaan la ngir yàlla génn ci bam set sa yoon nekku ci. waaw non. lii maag moom la. man mii. maag moom la moom kii bu toll ni kii kilifa bu toll ni kii ak li may sonn ci yéen ci biir kër gi xamaluma ko. ma génn ci biti dajeeg moom muy doxaan ay xale ndaw ci mbedd mi. ya ba doxaan ku fi doxaan. dégguma nijaay ku fi doxaan ah déet wax rek sama mbaaj. man man maa waroon am rek man moo tax arme bu ma jege kon heure bi sa tuñ mi ak sa boo xam ne rek laay boole fiis mu jeex. nijaay nijaay da ngay doxaan. kan laa doxaan kan laa fi doxaan am sore. boo ko daan faral daana wax dëgg mais tey moom da cee raw xam man sama mpaañ damaa yaakaaroon ni man. gis na lépp bàyyi ci biir ndekete moom moom moom that's what you think today I'm a different person. très ma daal. léegi bàyyi am na alaxira du am sa xew. nijaay yow xam nga sax. nijaay lii lan la nijaay nijaay ñun say nawle lañ. nijaay yow kon nijaay yow li ñuy nekk ci kër gi yëpp nga naan ma seex maytul jigéen ñi seex bàyyi lii bàyyi la nijaay kon yow ndekete boo génn ci biti nijaay ah nijaay da ngay cagatu kii est-ce que du moo raw moom rawul caga yi sax na ma yàlla baal ndax ci koor laa nekk nijaay doo ma yàq sama koor nijaay eh. kii moo raw caga yi fi mu ne nii mam ton toll yow rusoo ragaloo tiitoo léegi nag cim lii moom buñ ko defee maa ngi daayal bu ñu waxati dara comme yow mii kilifa gi nekk ci kër gi war ñoo teg ci ay normes yow yaay drapé léegi nag lépp leer na. li leer leer na li lëndëm lëndëm na mooy yéen ñaar ñii gis ngeen problème bi ni la toll mais yéen ko zoom indi ko ba fii tolloo ko ni mu tol moo tax xoolal de laaj ma la laaj ma la xam nga la la kër gi maa xamoo sama kër da ngeen koy jël juga. ah ah juga ngeen génne kër gi. pardon juga. ci problème bu ndaw bi rek lay juk jeul li nga am nga jeul li nga am ngeen ñibbi seen kër nday man juruma leen seen nday la bokal problème tay problème suba jug leen ngeen dem lii laa bëggoon nag dem leen waa jug leen dem mooy ma dàqal lii laa bëggoon dem leen loolu la bëgg leen dem jug leen jug leen man lan laa eh, bëgg nan damaale li nga bëgg mooy ñoom ñu génn kër lii laa bëgg nañ dem nañ dem ah, rek bu la dara met nañ dem jug leen dem rek leen dem jug leen dem nañu dem sax man man laa rey gas la suul la fii ci ginnaaw kër gi dem leen ba pare. kay waay toog leen daan wuy ma. léegi yow nañ dem nañ dem sama kër. doo dem foo dem sama kër dem mu ne yaay bokk na rek baax ci kër gi nga bokk. doo dem waaye yow aw ma la yow kese nijaay aw ma la yow. Eh. sama nijaay de. You think every time I'm just going to be sitting here, you're going to do anything that you want? because I'm a simple woman. I take, take, take uh, things easy with you. Oh, really? So you think I'm that foolish? foolish. I'm just other, other, other kind of women out there who, you know, can do anything. A man can do any, anything they want to. Today is a different day. You're going to taste the side of me. Definitely you're going to taste the side of me today. I'm sorry. Eh, yo! Eh, mm-hmm. Mm-hmm. Very feeling. kii. li nga def wala ko def ku ne gàng la yow. ah njaalo. kii fi mu ne nii caga yee ko raw sax caga yee ko raw moom moo raw caga yi sax fi mu ne nii. loolu baaxul. paak sama bagage yi léegi ñibbi ngay def. am solo am solo am na yàqu na waat merci umbaay waaye liggéey bi jàpp na waat ñu biir Gambie umbaay très bien sama tànk ba fara ñu expliqué après naa la wutal far dégg nga ginnaaw yàlla yow laa si dafa nànk rek maa koy réglé man man léegi damay tàng xol comme ay bandi. waxal waxal na kii moo mën sama biir moo mën sama bit naan kii moo tax man dëkk bi ñëpp nawloo ma jox ma cër bu ma yàqu. in in sa loxo in waxal ñaanal ndey. Eh, mu laa waxal waxal. pili fort waxal asalaam Muhammadu Rasulullah. waxal bàyyi naa njaalo. moo ko waxee nag boobu nga la waatee bàq seet dina ma xam ma yow yow yow waroo rus. li ma la wax am am nga jàpp bu fi def dara kon kii kii njàppam na bu yàgg kii jógee ci jigéen ñi yow doo rus sax yow yow yow nijaay yow ak li nga ñuy wax ci kër gi yëpp naan ñu sama seex maytul maytul jigéen. seex bàyyil jigéen seex bàyyil jigéen rek te nijaay kon nag boo génnee ci bi da ngay cagatu nijaay da ngay ni nijaay xoole nga ba sama mpaañ nii léegi nag moom dootoo amati jabar jabar mom pare nga dootoo ah xana ki nga nijaay eh ni ni nijaay abonnel bu fatte bés notification bi ngir ngay am suñu vidéo